expertu làmb yu bare bari joxuñu Siteu favori yéen nan la leen def. mais loolu yàgg na ci Siteu Siteu loolu moom Siteu laa déggee dañ ko joxoon favori waa ñu ñëwaat bi joxaatuñ favori dañ ciy sant yàlla waaw yéen làmb ji moo loolu nit ñi la jaaxal ak waa làmb mais ñun waa jàmm gën yéemuñu. ndax lan waaw parce que mbër la kom yeneen mbër yi rek xam nga di góor kom yeneen góor ñu Siteu di góor gu dëgër waaw te noonu la demee bii du yooyu gars yi dawuñ ñoo ko gën a danger. fere na Ama Baldé. waaw fere na Boy Niang. ci benn weer. non bii du ñu ngeen waxal la Siteu. yal mi borom dëkk Siteu ngeen waxal xale bi maa gën a. waaw moom la yéem yéen waa làmb ñi ciy wax ak ñoo ñun bàyyiwuñ ko sax xel. jàmbaar la nag. mais eh, billaay du ñu toog bay waxtaan ci moom. lu mu bax ñu ngeer ko maanaam lu mu bax fek ko fi lu mu bëgg am na déggoo Modou Lo dawaluñ ko dara non waxuñu sax si yooyu ñun loolu ñoruñu suñu combat ak Modou Lo non maanaam si combat ak Modou moo ñu ñor ay roi ak empereur loolu sax andiwuñu xam lu ñu andi li ñu maanaam li ñëpp wër li mu soxla maanaam li mu yor moom lañ soxla te incha allahu rabi dañ koy jël si andi ko fii si dëkk bi. ah nga ni Siteu mën ma ñàkk su man day dama ko gëm 1000 pour cent. billaahi wal kitaabi yàlla rek a tax may wax. abu boo ci doon am looy teg le 24 combat si ta ak loo looloo ciy teg. waaw bañu ma si dërëm xëy na nag du ma xaalis moom dama koy wax mais maanaam déggoo li ma la ku si teg sa xaalis da ngay gagné. waaye pourquoi doo gagné da di jàmbaar di góor comme moom di kilifa muy kilifa chaque jour ñu ne dañ ko ëpp doole ci de làmb bi dañ ko ëpp doole la nit ñi di wax de. mais mais dama gis yéen ñëpp ay ñoom booloo yéen ñëpp ngeen nekkaat ci état la. ah mais liggéey rek liggéey rek affaire yi moom gis na surtout liggéey rek waaw liggéey rek te liggéey moo koy maye ah li mu am nii liggéey moo ko fi andi. Ah, Lo dàq xeex <laughs> loolu ay waxu la rek waaw gis nga kanam foo dóor mu saf. dañ bàyyi yooyu yow sax boo ma dóoree ma yëg ko. waaw kon Modou Lo bu dóoree si te da koy yëg si te bu ko dóoree moom du ko yëg. waaw Siteu di góor man loolu laay bañ a dégg te sëriñ yi ñu bàyyi wax ji nañu wàññi wax ji. ah lan la sëriñ Siteu la tiit wala. non sëriñ yi dañoo mën tiital maanaam gis nga ndam yàlla moo ko yore yàlla. gis nga kiy daan suba yàlla moo ko yore dañuy ñaanlu mais gis nga ndam si liggéey la nekk ak gëm sa bopp te ki ñu àndal gëm na boppam liggéey liggéey na loolu moo ko andi fii wax bu bëri andiwu ko fi xëy na tey ñu boole Siteu Modou Lo wax ji bëri ku nekk bëgg a wax Siteu yeggul nit ñi ñoo soxor. des fois sama xol day bon. parce que xam la moo tax sama xol di si métti. Siteu Lac de Guiers la bëreel. mais Modou dafa daan Lac de Guiers par avertissement. kon nañu bàyyi yenn mbër ñuy jëm gis nga Siteu. mbër bu ko si yab rek ci média bi nga toog wala nga toog si ruq bi mais boo dajeeg moom da nga koy abal. taw barki Serigne Sidi Mbacke Awa non da ngay toog des fois su xol bi day bon si yoo xam ne kenn du wax mais man li may xam naa ko bëri na si mbër yu nekk si lamb jilaa laa di càggatu di wax affaire maanaam di kebetu sax laa bëgg wax di bandi bandi ku si dajeeg Siteu da nga koy abal barki maam Cheikh Rafal non parce que gis nga mbëri nañ gën a respectante gis nga nit boo ko ñe boo leen ni boo leen jàkkaarloo xoola boo bu nit boo jàkkaarloo moom doo ko wax yenn bul nekk si micro di ko wax xam li nit boo ko ñemee da ngay dajeeg moom nga nga ne ko hey nii la demee mais doo toog si média chaque jour Eh, di kebatu te yow boo séenee nit ki fële na la ngay jaar dañ bàyyil yooyu ñu si dara la topp ba ñu si dërëm. ah bu may ab ba pare bari na ñoom leen gën a jaaxal mooy saabu abu àndeeg Siteu Siteu moom combat boobu lu ko jaral la lan la. non parce que noonu lañ àndee ñun loolu lañ àndee te ànduñu si caaxaan wala ay kàcc wala ay tapalante dañuy joxante ba mu jeex. dañuy dëgg gi koy wax kenn du ko. parce que loolu moo ñu boole te si la ñuy dee te ku gëm. non bàyyi loolu non waaw xam nga yàgg na loolu du tey non ke ku la wax lañ nekkoon yooyu non yi ne ñoon Gambie de bàyyi lañ gars yi dañuy wax rek gars yi dañuy wax rek gars yi dañuy wax rek daal mu ngi liggéey def si ko kaay kaay koli koli kaay xam nga li ma la yi. ne si de na bu ko mënee na ko warax. bu ko waraxee day tuutaay. bu day fatt. bu ko mënee na ko warax bu dee da ko bu dee boo ko mën na ko warax. day fatt kon. Siteu ku ñuy warax de. Siteu ñox la am alee la am mais amul retour. billaay li di xabtalu bu ko mënee na ko warax bu dee nangam. combat royal du benn li ko tàggee sips. ba jëm ñaajo. ñu ngi bëri la première fois. ah suñu bëggee lañ ci gar. la. mais mais ñëpp ñëpp ne Siteu ñëpp ne Modou Lo moo man Siteu. waaw ñooñu mënoo ñooñu déggoo ñooñu mënoo lañ xam xamuñu Siteu li nekk seen xel la ñuy wax li nekk seen xol. Ah, kàcc waxuñu dëgg ñooñu li nekk seen xel li nekk la ñu wax. kii ne la ne mbër ko bëre te ñëwagul. Siteu ko. dawuñ ci dara barki maam Cheikh Fall Modou maa ngi moom tey ma dëpp ko dëppaat. waaw ngeen naan waxuma laa Siteu Siteu ñëwagul man ak ñu ji réew mi ñu woon Sierra la nekkoon. bala maa billaay walaay talaa ko ñu xam doom neex na ndayam neex na ndayam déggoo yi ma la wax waaw yow kan may Lo yow ah fa la dëkk Ama Ama Ama parewul Boy Niang mu lambam kii da koy saraxe bii du yooyu kii da koy saraxe Modou Lo barki maam Serafal lay xaar mu nekk mu naqari ko bii du yooyu de kii yabuñu kii dëkk moo ko da ngaa bis bi fu mu tol dëkk mi réew mi voilà da ngaa bis bi fu mu ci réew mi kii borom réew mi la kii borom dëkk bi gars yi naa ko dëkk bi xam nga dëkk bi jaamu la ah. kii borom réew mi la yal saane yal saane Modou bu ko mënee na ko warax ma gars na ko lekk na ko warax la ko waral. gars